أصحاب الجنة أحمد ربا كون حولي ألنا حصمني من العذاب ولنا أحمد ربا كون حولي علنا عصمني من العذاب ولنا أحمد ربا كونه لي ألنا حصمني من العذاب ولنا صان جحات ست باق أحسنا لي ظاهري وباطني فحسنا حبي له وللنبي تبينا وليما اختاره قد عينا أشكره شكرا يزيد يقنا ولي لا يفدي دواء يقنا بجلني مغن كريم مكنا وطيب الرزق لنا والمسكنا إلي قال الله أجرا حسنا village bi nag ñu teg ko ci loxoy Serigne Saliou Dieng mii mu nekk chef de village bi yàlla def na liggéey bi mucc na ayib lool macha allah ñu ngi koy ci sant bu baax a baax a baax ndax it koo xam ni dénk nañu lu toll ci fanweeri junni yi buntu kër te néewuñu immeuble bee yaa ko moom wala château bee néew na lu muy am ci réew mi ñu nekk. te loolu amut benn kër la am ma nga boqaat ma nga janatul maxwaa mooy kër go sëñ Saliou mayoon kon loolu yàlla ko ci suñu borom gën a fay ak ci barkeb sëñ Tuubaa la ca dolliku mooy sëriñ bi fii nga xam ne mooy boqaatul mubaarak am na fi ay nit yoo xam ne seen i ci moomeelu sëriñ bi lañ nekk waaye day mel ni li sëriñ bi def gënalu leen na ko sëriñ bi defee loolu nag yàlla nañu ci yàlla musa wala wala bi laa ni ñu koy waxee ndax ñun lépp lu sëriñ bi def baa mu dogal ko gënal nañu neex nañu te noonu lañ koy bëggee am na fi ñoo xam ne si nii léegam léegam ci biir njaboot gi dana am ñu bëgg ay barab yoo xam ne si nii xëy na duñu ko lañ cey soxla bayal ba ñuy soxla duñu ko amee ci duñu ko mën amee ci biir dëkk ba ñu ñëw ba fii gis fi lu dem ca sëñ Muntaxa mu yebal la ci sa jëmm ju tedd ji nga woo chef de bi ni ko barab sangam di jox nañ ko kilifa sangam am na fi amate fi bu ñu demee di ko wan kilifa yooyu léegam léegam ca koñ booba dana am ñu ca génn naan sëñ bi santaane wu ko ak bu ñu fa sampee ñu sempi quartier bii ñu nekk di Taïba yàlla def na jox nañ fi njabootuk Cheikh Abdou Lahad Khadim Rasoul ay barab yoo xam ne si nii boo xoolee ci plan bi juróom benn la kañ ko jox ab jàngale katuk alxuraan la sëñ Cheikh Lagan lañ ko sëñ Cheikh Jay ku ne xam na ni ci jàng ak jàngale la nekk bi ñu fa demee bëgg faa def bëgg koo bëgg faa def dara la ñu wax waa koñ ba mooy sempi borno yi lañu def indi fa coow loo xam ne si nii bari woon na lool ba yaakaar naa ñu ne am na ci yoon dem nañ ci rajo yi dem ci tribunal ak lu nekk loolu nag sang bi li tax ñu koy gaaral xam nañ ni bu duggee sono bi mën naa saafaraw ndax fii yow la sëriñ bi di déglu yow la dénk yow lay def loo yow lay wax loo te lu ëpp ci liñ fiy def ci yow lay jaare kon moo tax chef village bi waxoon ni ci sama ci turam naa ci wax gaaral la loolu ba nga xam ne loolu bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne si daal loolu rek la ñuy xalaat ni maanaam boo fi accès danañ la ko gaaral muy loo xam ne si nii dana sooxeel liggéey bi léegi daan donte du ko yàq ndax suñu ci wàllu lu mu bëgg luy am lay doon dana sooxeel liggéey bi léeg léegam léegam sëriñ bi village bi 96 lañ ko commencé sañc biñ ko commencé sanc 96 ak léegi dem na ci fanweeri quartier ak juróom-ñett chef de quartier yaa ngi nii toog maanaam am na juróom benn marché ñaari ñetti fonctionnel lañ ñu ngi dox am na ñaari poste de santé am na yeneen ñu fi mébét yoo xam ne ak seegut li ñuy wax Pakasen natt nañ fi juróom-ñaari kilomètre mu commencé ci mbaaru Madiana yi ba ci buntu yu xonk yi fi ñuy wax buntu yu xonk yi xalaat nañ fee def brigade muy benn gendarmerie mais ak seegut moo bureau bi ñoo taxaloo mooy lii sës ci bureau bi foofu la ñu bëgg def brigade bi commandant bi ñëw na fi xool ko bañ bind kayit yi jox leen ko loolu moo doonoon li nga xam ne si nii yàlla def na moo fi amagun ci village bi village bi nag li ma njëlboonoon samay wax li nga xam ne si ni mooy ay manquement duñ ci ñëw ndax loolu xam ngeen ko ca da def ni mu waree Touba du dëkk boo xam da ngay ñaxtu naan lii ak lii dafa manqué waaye dadi nit ki boo ko dee liggéeyloo fu mu tollu ci ab liggéeyam war na la ko gaaral di la ko leeral ñuy sant bu baax a baax di nuyu euh, monsieur le maire mi ak si nii di ko jox wàccuwaayam di sant sëriñ bi bu baax te ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàggal la fi bu baax a baax a baax a baax wéral sa yaram ci barkeb si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu maa ngi dox ci baatum ndigal ndax sëriñ Bas da ma woo léegi na ma su noppee na nga ma ko tontul samay wax nag lu weesu sëriñ Sall Dieng mi ak sëriñ Bas mi ndax ñoom seen mbir ah, xawma lépp waaye xam naa ci lu bari ndax kenn ku ne bala sëñ bi samp ci baatin say si da xaw ma ko baatin bi baatin bi da xaw ma mu fekk naa ko ndax euh, sëriñ bi sëriñ Sall Dieng sëñ Bas nee mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm ndax nii nga ko gàttandoo koo fonk doo ko ni loolu rek set na xolam wuute wu jàppe nga ko ni si Muntaxa moo fi doon ñëw kon loolu ku mu régu dara du la reg la ci des mooy suñ bés mi nga xam ne moom la suñ Muntaxa jiital ci lu bari ci lépp moom day ab sampa moom fekke naa ko waaye booba suñ suñ seel yu da ko rek waaye man booba xawma lu muy wax man mii la ko wooloo ne ma suñ bas nga ko dégg ma ne ko ah, waaw gis naa koy dégg de mu ne ma da ko koy làmm mu ne mu ne ma waa bàyyil noonu bu ko wax dara ci takkusaan suñu bas woo ma ca ginnaaw ne ma man de dama demoon Ndakaaru te na mu sëñ bi bala may kër gi bëgg bi ma ne ko ah sëñ bas mi nga doon wax kattan woo moo woo mu ne ma woo ko mu ñëw mu ñëw mu ne ko Moussa mi de maa ngi doon wax ci yoroon naa dama laa nam waaye dama ko doon bu ko mbaa woowul mbaa moo la woo ma bas ne ko woowu moo de dama fee jaar rek balam ma bëgg bala may kër ga nuyu la mu ne ko fooy yéen mu ne ko puut mu ne ko ah puut googee de am naa fa suuf soo xam ne si mooy dango googu ñuy wax euh, dañu ma ko jox waaye dafa jafe lool dafa jafe liggéey ni ñetti téeméeri million lañ ma ci fayu te it xam naa ne loolu dana jafe waaye dama koy di sëriñ bi sëriñ bas na ko loolu moom booy ba nga jàpp ne sotti na dinaa déjji bunti dinaa déjji dinaa ko dinaa ko dinaa ko dinaa ko dinaa dagg garab yi déjji déjji déjji ko bu maase la ko indi la matt mi Tuuba sëñ sëñ bi ne ko ah loolu dana jafe mu ko dinaa ko def ñaanal ma rek sëñ Bass jóg mu ñaanal ko ba yàgg mu nañ ko waa ndax xam naa ne loolu gasoil bi dana bari ma dimbali ko ci gasoil sëñ Bass dellusiwaat mu ne ko maa la wooluwaat kat ndax euh, damaa xam ne loolu gaasuwaal bi dana bari mu bëgg la ciy dimbali sëñ bas na ko sa ñaan moo ma gënal gaasuwaal ñaanal ma rek daal di jóg kaala gi rot for ko jox ngir yàggam mu yàggam di génn ko nag looy wax lu ne nay doon lu leer kon nag sëñ bas bu jógee këram ànd ak ay xaritam ànd ak ay taalibim ah, néew ma sax ñi mu gën a fonk waaye ñi mu taxool kon ndax sëñ bas moom ñëpp la fonk ñu kay leen gunge ma yow am nga taw feex góor góor lu te déggoog moom te lépp loo xam ne li wax na la ko nga wéy ca loola bul suñu bas nee na nag te égoo ci suñu bas moom bul ko gëm ndax jamono ji yàqoon la wax ci gii mi ñëm nag loo wéyul loola da xam ne waxi si mu taaxa la wax bul geesu man boo gisee sëñ Saliou damaa mas ne benn bis maa ko mas ne sëñ bi man de damaa xaw a jaaxle tuuti ndax li ma yoon daa bari ndax dépasse yi xar mu ñëw nga jox ma nawu ñëw nga jox ma bu ma rombee mu nuyoo nga ne ma lu ñu nuyoo loolu lépp jafe ci man mu bëgg na nga wàññi ko am loo xaay da nga koy jox ñenn ñi mu ne ma Moussa dinaa la leeral tuuti yet yet daa ne ci yow mu ne ma yet daa ne ci yow boo gisee bu mooy wax ak nit woo la yet daa ne yow jëngoo waaye doo fàtte te fàtte kat laa taam loolu moo ko fàttee dara du ko jar loolu tax ma di la woo ngay seere li ci des itam am nga fit am nga fulla fulla ji doo def lu ko matut sama yëf te itam am nga fit waxaay doo ragal kenn ba jël sama yëf di ko ko neexale gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ñaanal Serigne Muntaxa xalif sénat de mu yàgg fi téwéer di ñaanal Serigne Sidi Abdoul Ahad mi waral ma toog fii di wax ci kàddu yi dëkk bi mu yàgg fi téwéer ak njabootu Serigne Touba gépp di nuyu Serigne Saliou bu baax a baax ci turu Serigne Bassirou Abdou Khadir mi nga xam ne moo ñëw tey jii di la nemmeeku si ci liggéey bi te fekk la ci barab bii nga xam ne moo comme ni ko sëñ Baye Moussa waxee ci la la Serigne Saliou dëloon ci seen kanam ñoom ñëpp teg la fi di la loo di la dindiloo te yàlla dogal ñu rafetlu Serigne Bass ñu rafetlu jëf ji lool ak doxin wi ba tax mu jóg di la nemmeeku si yow ak njaboot gi fi nekk ñi ngi lay jox nuyoo bu mag di nga jox ko sa chef de délégué de quartier yi fi nekk yëpp ak kilifa mboolem kilifa yi nekk ci willaas bi ak bokki taalibe yi fi nekk muy góor ak jigéen mag ak ndaw di la nuyu ci ak Moustapha mi nga xam ne sa ndaw la te lu bëree bëri bëri ci liggéey bi mu ànd ko ak yow di ko doxal ak mboolem ñi nga ko àndal ñoo ngi lay nuyu ci turu sëriñ bi di la xamal ne sëriñ bas nii rek la ko suñ borom binde yàlla miy dogal def naa Moussa wax na ko ba mu jeex li Moussa wax neexatu la teg dara ci sëriñ Saliou moo ko xooloon ba doyloo ko seppi ko sëf ko li nga xam ne lenn la ci liggéey li ëpp ci liggéeyub sëñ Tuubaa bi def ko ci ndaw bi mu demee gis ngeen alaaji baare ñëw feddali ko yal na yàlla dolli leeram sëriñ Sidi Mokhtar ñëw feddali ko yal na yàlla dolli leeram sëriñ Muntaxa ñëw ànd ko ak moom ku nekk xam na ni demee ak li xew ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi nga xam ne ànd teg nañ ko ci seen kanam ñu nangu ko te nangul ko ko te doyloo ko loolu defe naa ne lu lu ñëpp xam na sëriñ bi ñu lay ñaanal rek ñun ñi nga xam ne yàlla daf ñoo dafa dogal ngeen dénk ñu ay bànqaas ñu ànd ak mbooloo di liggéey ci dëkk bi ñun ñëpp day war nañoo maase di la ñaanal yàlla guddal sa fan te wéral say cër ndax mbiram sëriñ bi nag li sëñ Abdoul Ahad waxoon moo ko yoral boppam di seet ni ko koy ni mu war doxee mu teg ko ca li ko ci ñor mu di ko doxal waaye bu fekkoon ne jamono yii ñu passé ak jamono yii ñu nekk sun borom bi tabaaraka la bindu la bindewu nii mu binde ci mën a muñ ci yaatu ci xam ci ràññee ci ci ci ci mën a defare maanaam ci ci coordination bii nga la yàlla binde kon dana doy waar lool dana métti lool ci nit ñi te defe naa ne dana jaxasoo lool waaye lépp loo xam ne am nam lëj ba ñëw ci yow ku ñëw jaaxle ba mënatul a dem wala xamatul fi mu jëm bu ñëwee bu toogee ak yow fukki minute ak juróom dana yeesaat ci taalibe dana xam fan lay jaar ba dem dana mën a regle mbir mooma mu doon def loolu nag du lu yomb ndimbalal suñu borom la ak Serigne Touba moom képp ku mu yen dana la téeñal ba nga xam fi ngay jaar ñun day ci loolu képp koo xam ne daal yow nga benn responsabilité wala ngay taalibe Serigne Touba ci dëkk bi war na laa ñaanal yàlla guddal sa fan say ceeb ndax neex nga àndat mat nga jawrin xam nga ni ngay ji yore nit ñi ndax nit ñi lu nekk ngi ci ñëpp mën a yem wala ñu ma ci façon bu ne bëgg-bëgg la seen bëgg-bëgg lañ am ak seen xel mu gàtt te ku ci am xalaat wala bëgg-bëgg xamatoo leneen lu dul loola waaye lu nit nëx-nëx ak lu mbir jaxasoo jaxasoo ak lu nit mm, eh, eh, stressé stressé bu ñëwee ci yow boo waxtaanee ak yow da nga ko xelal ba mu génn ci loola waaye da ko ñaax ci sëñ Tuubaa ba muy doonaa taali bu bees teg ba bu demee mën a takkuwaat te loolu man xam naa ci lu wér a wér a ndax ba ba li arab di wax miraara ñëw naa ko ci yow dema dema dem ba jaaxle loolu boo mu ñëwee nga dema ma ah defal nii defal nii defal nii régler mbir moom ma tegaat ma ci yoon wi ma mën a dem te maa ngi ñëpp a ci yem kon daal Serigne saal ci turu sëriñ bi mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm mi ngi ñuy ñaaxaat ñu ñi nga xam ne daf ñoo teg ci barab yi ci turu ci ndigalal Serigne Mountakha te ndox suñ digganteeg sëriñ bi ñuy ñuy ñuy dem ci nit ñi nekk ci kanam nit ñi mi ngi lay sant di la gërëm ci liñ weesu waaye di ñu ñaax ci liñ jëm te ngir ka te di ñu ñaanal ngir ñu am ci ngërëmal sëñ Tuubaa yow nag am na lu ma lay wax jamono bu ñu dajee ci réunion yi nee naa la saal sëñ Saal di ñëpp am nañ problème waaye yow yaa ci raw ndax yow day ñëpp jàpp nañ ne ku jub nga loo wax ci àddina nit ñi wóolu nañ la loo wax jàpp ne ne lii lu wér a wér la kooku nag wala ko nit ñi tegee yow am nga jafe-jafe defe naa ne loolu wax naa la ko ci biir ab réunion ci commune ba lu baree baree bari ci kanam chef de village yëpp kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan sëriñ bi mu ñaanal ñu liggéey bii nga xam ne moom la ñu dénk ci dëkk bi ñu di ko doxal sun boro may ñu ci ngërëm tayyabali wal wasana لي قاد في نومي سرا بتنا وبي يباحي كل من تفتنا جمال ربنا توجعلنا بغير مكر ذات نذء لنا نفى العزيز ما يجر الوصنا لغير نحوي ولغير ينسنا نفى الذي كيد الأحد وحنا شكيحنا في كونه لي وحنا حدمت بالله بنا من لعنا